الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون gannaaw loolu mbokk julit yi doomu aadama bi na xam ne suñu borom yàlla bi muy yónni ay yonentam bokkoon na ci seen mission ñu fàttali fa yàlla jaar ak i jaamam jaamam yooyu séddalikoo woon ñoo xam ne dañ koo gëmoon topp ko ak ñoo xam ne dañooy weddi woon séddirlu suñu borom yàlla woon mbugal gëm wàcce woon ca noonam musal gëm musaloon ay jaamam loolu war a yóbbu ab julit muy doon kuy yokk ngëmam ci yàlla di yokk ragalam ci yàlla waaye di yokk wékku gum wékku ci yàlla suñu borom yàlla won nañu ay xeet yu bëri yu mu alal waaye bokk na ci loolu mu nañu ma ndax yéen kenn ci yéen yëg na la doxoon te diggante Muusa ak Firawna ba ko suñu borom woowee da ko Firawna day mburu na Muusa demal nga waar ko delloo ko ci yoonu njub loolu di wane ne suñu borom yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem doomu aadama du yëgg ci mbon ba yàlla subhanahu wa taala seexlu ko rëccitu ko bal fu sa mbon mën a toll suñu borom yàlla mi ngi lay tàllal ay loxo ngi ne nga tuub dellu ci moom bi Moussa di dikkal Firawun fekk na Firawna mi ngi mbërum ci kaw Égypte jël bani Israil def leen ay jaam di rey seen doom yu góor ya di jël seen doom yu jigéen ya def leen ay jaam ca chantier ya Moussa alayhi salaam ñëw waar ko na ko kaay dellu ci sa borom tuub mu baal la mu ne déedéet man maay yàlla bi gën a mag ana rabbukumul aala suñu borom yàlla nee ne nii laa ko jàppee la nga xam ne mooy mbugalu adduna ak mbugalu alaxira mu ne nag ay yéen xalaatkat yi xalaat leen ci loolu inna fi zalika la ibratan liman yaxsha ci kenn ko ragal yàlla di xalaat ci loolu mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala bés bu mel ni bisu ashura gis nañu ni suñu borom yàlla moom la tànnoon daal di ci jox Moussa ndigal alayhi salaam ne ko wool bani Israil ngeen génn Égypte danaa leen dimbali ba ngeen dellu ci seen dëkku maam ca Palestine musal leen ci ay Firawn yàlla defal ko lam ko santoon la lam ko digoon Moussa mucc na ci Firawn ak xeetam xéewal googu ko yàlla def muy def di ci sant yàlla bis boobee ka yàlla mosaloon ba mu ñëwaatee Moussa woor ko ngir sant boroomam subhanahu wa taala xeetam daan ko woor su yonent alayhi salaatu wasalaam ñëw Madina fekk yahud yi di woor Ashura mu ne lu tax ngeen di woor bis bi te jël bennu mission suñu boroom da koo yaataloon ci muy maslaha ak ahlul kitaab bi dëppoo ak ñoom ñu ne ko bis bii kat Moussa ka daan woor ngir sante ko yàlla ngir musal gi ko yàlla musal ci Firawna mu ne ñun de ñoo gën a yey ci Moussa ci yéen daa di ne jullit yi woor leen ko loole booba weeru koor sax ñëwagul yonente bi farataaloon ñu woor Ashura bi nga xamee ne weeru koor nekk na farata mu ne léegi nag kum neex woor kum neex na nga bàyyi noonu la ko di woore sallallahu alayhi wa sallam ba ci mu jéegu dundam suñu borom yàlla sant ko na ko mu juuyoog ahlul kitaab yahudi ak nasaraan yi loolu moo tax ba lenn ci sahaaba yi na ko ah ashura bii ñuy woor day dañ koy bokk ak yahudi di ko woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon ñun day bu déwee ni nañu woor juróom-ñeenteel bi boole ko ak fukkeel bi loolu nag moo nekk jubluwaayam yow mbokku julit mooy nga xam ne les yahudi ak nasaraan yu jaar ca mooy jaxase seen diini lu leen neex yokku ca lu leen neex wàññi ca seen doxalin woowu yow da nga koo bañ da nga koo wan gannaaw looloo tax ba lépp lu ñuy doxale da ngay safaanoo ak ñoom ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee aw doxalinam amul lenn lu cay jëppoo doxalinu yahud wala nasaraan lépp rek da nga koo wutale ak ñoom ndax ñaari xeet lañ ñoo xam ne ñooy almaghdubi alayhim wala daalin ña nga xam ne dañoo am merum yàlla mu yahud ya ak nasaraan yi nga xam ne dañoo doon ñu réer kon mbokk mi ngi noonu ñi wooru bisu juróom-ñeenteelu tey bii fi ñu lay xamd soo ko wóorul it bu la ko yàlla fekkalaatoo nga xam ne nga ne la ci yow mu ashura boo koy woor nga woor juróom-ñeenteelu fan ba su la rëccee nga rool nga woor fukkeelu fan ba ak benn su ko defee mu nekk ñaari fan mbokk li yonent bi alayhi salaam sahaaba yi laaj nañ ko waaye mu yàlla yónni koor gi ñuy woor moom lan moo ñu ciy ñeel mu ne képp koo xam ne woor na bisu ashura day mboole mi bakkaar yamu amoon ci at bi wees yàlla dana ko bal lépp mbokk loolu ngëneel bu rëy la ci kenn ci képp ko xam lan mooy conséquence su bakkaar ci doomu aadama bari na fitna yu dal ci yow bakkaar la bari na say ñaan yu nanguwul bakkaar la bari na xéewal yu yëgsuwul bakkaar la kon baal la suñu borom yàlla di baal loolu da ngay gis ne bunt yu rëy lañ ubbi ci yow mbokk bis boobu ñuy woor di ko fàttalikoo suñu borom mi ngi dëppoo ci weer woo xam ne nii mooy weeru muharram di sahabatul kiram jëloon def ko muy njëlbeenu ubbinatul islam waaye mu bokk ci weer yi yàlla màggal yonent bi alayhi salaam daan wax ne koor gi gën bu nit di koor mooy koor gi mu woor gannaaw ramadan ay boo xam ne donc bi nga woor gannaaw ramadan mooy woor bi nga woor ci weeru tamxarit bi nga xam ne moom la ñuy tuddee muharram loolu itamit moo tax ba war na ci ab julit mu góorgóorlu ji jéema roy sunna mbokk lan mooy sunna ci ashura ashura bi day la ci yeneen bi alei salaam sunnaal mu wér ci téere yi moo di ne ne ku ko mën na ko woor waaye mbokk gannaaw koor googe am na lu dee ëpp fukki mbir yoo xam ne ay nit rafetlu nañu ko te di ko te def yonent bi mosu koo def ay saxaabaam mosuñu ko def na nga léegi saywe na nga tus loolu raay bopp jëriñ ziyaare bari ma xam-xam bokk na la ci gën a siiw mooy fexe ba togg reer bu yaa ñeel sa njaboot boo ko defee at mi yëpp doo man ci dépense ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii soo demoon tey Saalum am nañ fa lu ca waa Jolof amul soo demoon Njaambur am nañ ca lu ca waa Fuuta amul ku nekk la nga rafetlu nga def ko waaye mbokk julit yeneen ci bàyyi salaam digle woon bàyyee koy saxaabaam mooy bisu ashura nañ ko def bis boo xam ne bisu koor lay doon guddig ashura dénkuñu ca dara surug ashura dénkuñu ca benn façon ñaan yu ñuy dajaloo di ca ñaan wala lu ñuy ñaan pare kenn kenn yooyu yépp ay nit danga ko rafetlu di ko def waaye amul benn lay bu jóge ci téereb yàlla bi wala sunna yeneen ci bàyyi salaatu wasalaam boo xam ne day saxal loolu te maa ngi lay dëggal ci ni sax ca la yonent bi saxoon ak i saxaabaam wallahi moo ëpp ay ngëneel lépp loo mën a rafetlu ci diine yi bal loolu rek sax moom mooy ngëneel leneen lu dul loolu ay bidaa la ñu bàyyi ci xel bu baax doy loolu la nga xam ne muy sunna ashura bi bisu feet bi bisu noos comme boo demoon tey jii Iran wala Iraq wala lenn ci ay dëkk ca chia yu doy waar yooyu ñoom ashura lan lañ koy def ñoom mooy contraire ñuy togg ay cere kanoos ñoom dañ koy def du sa naqarlu di caw seen bopp ay jël bal di ànd ak seen doom tax di jam seen doom yi deret di walangaan muy benn melokaan bu ñaaw boo xam ne télévision noonu lislaam yi kontaan nañ di ko tasaare ci àdduna bi yépp ñuy wane na xool leen jullit ñi ñu ngi noonu ñoo xam ne ñu ngi xuus ci deret bu bawoo ci ñoom loolu mbokk ak réer la boo xam ne yàlla leen di mosal tuuti mbugal gim leen nar a mbugal avant ñuy dajeeg moom bu dee tuubuñu loolu nga xam ne tuub nañ ko lan moo ci seen lay mooy Ousseynou Ndeye ci Ashura lañ ko rayoon mbokk suñu borom yàlla bàyyi Ousseynou mooy Ali ibn Talib moom it dañ koo rayoon keroog xare Uhud juróom ñaar fukk ci sahabatul kiram bokkoon na ca ñoom Hamza ñoo xam ne ci ahlul bayt lañ bokk ñooñu dañ leen a rayoon mu ndax am na benn bis boo xam ne yonent bi mas na koo jël di ko fàttaliku loolu di ko def bisu naqar loolu mbokk kon amul kon loolu moom ak réer la boo xam ne jàpp naa yegg siwul sunu réew waaye ala kulli xaal la ñu xam ne réer mën ta passé loolu gannaaw loolu mbokk julit ku nekk ci ñun heure boo gisee histoire bi war nay bàyyi xel ci ni ah suñu borom yàlla kat fam jaar waa aad jaar fag waa samuud firawna mi nga xam ne yoroon na nguur boo xam ne néew na ku ko am gannaawam daanika budul Suleymaan ba pare yàlla jàppe ko ci lii kon man mii kat mënumaa te yàlla xamal ne it keneen kuy mboru ci kaw suuf mënul te yàlla abadan loolu moo tax ba ku nekk ci ñun di war a góorgóorlu da jéem a juboo ak boromam subhanahu wa taala mbokk ñi ngi nekk ci xéewal yu rëy xéewal yoo xam ne safaanoo na ak fa yàlla jële woon bani israil xeetu lu mu nekk ay jaam ñii rendi seeni doom ci seen kanam di yóbbu seeni doom yi jigéen duñ leen gisati amma ñun fa lillahi alhamd ñi ngi nekk nii nekk ci sunu njaboot yàlla wërsëgal ñu xéewal alal jaa ngi baawaan sunu maam yi amul woon loolu nag nañu xam ne ci yàlla kese la jóge su ko yàlla bëggoon nangu kenn mënu koo téye bu yàlla subhanahu wa taala nam mu ñoo jox xéewal kenn mënuñu koo jox moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ne bépp lor bu yàlla wàcce ci yow na doon loolu feebar la ñàkk la ñàkku njaboot la ñàkk sëy la ñàkk jàmm la nee na loolu kenn mënu koo teggi ku dul yàlla bépp xéewal bu yàlla nam mu wàcc ci yow kenn mënu koo téye ku dul yàlla mboolem mbiri jaam yi ci moom lay dellu ci ay digalam lay dellu ku ko neex lay jox ku ko neex lay xañ ku ko neex lay xettali ku ko neex lay satal borom boobu subhanahu wa taala wunu ñoo bokkaaléegi moom kenn mboole mi kàttam ci loxoom la nekk suñu borom nag nee na am na ci jaam yi ñoo xam ne am na ñeneen ñuy jël bëgg leen nañu waroon a bëgg yàlla yaakaar leen nañu waroon a yaakaar yàlla waaye ñoom day dañoo réere ne ann al quwata lillahi jamia waaye buñ ko xamul ci àdduna yëpp léegi àllaaxira ñëw ñu daal di koy xam mbokk julit yàlla rek lay yaakaar ci yàlla rek lay sukkandiku xoolal Muusa alayhi salaam ak bani Israil ñi ngi nii di dem firawna topp ko ak armée boo xam ne mënuñu am xëy la nga xam ne nii moom mooy armée firawna Muusa gi gaayam mëntuñu leen dara loolu ñu dem ba sës ca géej ga ñi àndoon ak Moussa ne ah Moussa musiba am na géej gaa ngi nii mënuñu koo xuus firaw naa nga nii di ñëw tey ñun ñëpp daal ñu rey Moussa alayhi salaam ne leen déedéet maa ngi ànd ak sama borom sama borom dana ma jubal lu waral loolu moo di ne nii yonent ci yàlla yi alayhim salaam dañoo xamoon ci am yaqiin ci ne kattan lépp di loxo yàlla subhanahu wa taala la nekk waaye nekkul te la nga xam ne mooy sabab yi nga xam ne yàlla dañoo sant ñu sabab loo ko rek waaye kattan dëgg ci loxo yàlla la nekk Moussa amul woon benn armée benn yatam ba dong la yoroon suñu borom yàlla na ko dóoral géej gi mu dóor géej gi géej gi daal di jóg ba fukki montagne ñu ndox ak ñaar waa bani Israël nekkoon fukki famille ñaar Moussa ne leen ay ñëpp dugg ci yoon yoo xam ne yu wow koŋŋ la daal di ciy xuus jàll ba firaw na yegg seen armée suñu borom yàlla ci kattanam xiirtal leen ñu dugg ci géej gi ñoom tamit bañ demee ba yàlla musal Moussa ak ñoom àndaloon ñëpp ne Moussa dooraatal géej gi montagne ndox yi ñëw labal firaw na ak mboolem ñoom àndaloon loolu ci kattanu yàlla jàll waala borom bi ne xalaatin mi ngi ci biir ñeen kuy xalaat firawna boobu di Ramsès II ba tey boo demoon ci pyramide égypte ya ñay jiite gouvernement bi mën nañ laa ubbil ba ne la kàccoor bii moo dañu woon ak Moussa doonte ne ni gannaawam ay junni junni yi mbooloo jaar nañ fi ñoo xam ne kenn gisatul la nga xam ne mooy seeni jëm lii mbokk suñu borom bu ñu ko waxee mooy ba nga demee ba yaakaar jeex à cent pour cent yaakaar jeex ci zéro amatoo fenn yaakaar nga la way xamal ne des na benn kattan boo xam ne kattan boobu moom amul limite abadan ci lépp loo xam ne nii dal na la ci nattu ci lépp loo yaakaar te mënuloo koo jot yaag say mbokk ak say am di jàmm ak say médecin ak say xalaatkat yépp suñ demee ba échec total am xamal ne des na kattan boo xam ne moom amul fu mu commencé amul fu mu yem muy kattanu yàlla jalla waala loolu tax Moussa ne inna ma ya rabbi sayahdin kenn ñu suñu borom di nettali histoire boo xam ne moo nit ci géej la xewe woon ak jaamam bu ñuy wax Yunus nekkoon yonent bi yàlla ci histoire bu gudd dem na soobu ci géej gi benn baleine ñëw daal di koy lanc ca ku xam la nga xam ne mooy baleine bleu yooyu nga xam ne day def ay trente mètres de long doomu aadama day mel ne kuy macc ab tàngal ci moom mu daal di koy lanc waaye yuunu sa ci biir gën googe ci biir lëndëmu géej yooyee ca la woo yàlla jënd wa ala na ko ay yàlla maa ngi seede ne kenn yowul ñu koy jaamu ku dul yow ay yàlla maa ngi nangu na damaa tooñ loolu la jokkoo ci boromam ngir yàlla xecciti ko ci na am la ko dugal ci biiru jën ba mooy tooñ bu mu tooñ la fekk mu nangu na yàlla tooñ naa loolu ñu wane na tuub na tuub bu sell comme suñu bàyyi aadama la moo xam yàlla rabbana zalamna anfusana dañoo tooñ suñu bakkan suñu borom yàlla génne ko ci biiru baneen boobee loolee mbokk mu lay won amul benn xat-xat bu doomu aadama mën a yegg ci kaw suuf loolee ca lali hôpital yi la loolee ci biir prison yi la loolee da ngaa riir ca àll da ngaa tumuranke bitim réew ba mën a yegg fa yuunu sa yeggoon waaye teewul gis na suñu borom yàlla naka la koy xetti ne lii kon moo tax ba julit bi nga xam ne dafa xellu mooy ngi góorgóorlu ngi jokkoo ak boroomam xolam mu dëppale ko ak boroomam fu mu mën a toll mu wéetal yàlla waaye fu mu mën a toll mu doon koo xam ne dafay tudd yàlla jalla wa ala ca xam ni kat suñu borom yàlla moo nii bokk na ci loo xamee ni nii moom la kontaan ci ab jaamam mooy avant ngay am problème nga dellu ci moom avant ngay am problème nga di ko yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne yaakaar na heure bu amee jafe-jafe yàlla xettili ko balaa jafe-jafe di ñëw ci moom na bari lool lu muy ñaan yàlla na bari lool loo xam ne lii da koy def zikrullah te xam ne mbokk bokk na loo xam ne mooy xëcc gi doomu aadama bi ci fitna mooy nga wattu la nga xam ne mooy ndigali yàlla yi wattu la nga xam ne mooy tere yàlla yi suñu borom yàlla nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib amul kenn koo xam ne da nga ragal sa boroom ci topp ay ndigalam bàyyi ay kereem lu dul yàlla subhanahu wa taala da nga la génn ci xaqan ya nga xam ne da nga nekk tey da nga la wërsëgal foo xamee ne nii yow yaakaare woo ko fa woon ma ko suñu borom yàlla nee na mi ngi ànd ak jaamam yi ko ragal mi ngi ànd ak jaamam yi nga xam ne nii dañuy rafetal mbokk ki ànd ak yàlla ñàkkatul dara ki nga xam ne ñàkk na yàlla amatul dara loolu moo tax ba nga la waay lépp luy nar a dox seen digganteeg ànd ak yàlla bàyyi leen ko pertement ci nekk buy alal jigéen fal lu mu mën a doon luy dox seen digganteeg yàlla bàyyi ko pertement la waaye lépp loo xam ne danay jegeel yàlla lu mu metti metti lu mu naqari naqari nga la waay dem te ca xam ne loolu mooy bunt xéewulu àddina mooy bunti xéewulu alaxira sunu borom yàlla moo yor xéewal yépp moom moo yor caa caa bi lépp loolu moo tax ba mu ngi woo ay jaamam di leen nettali comme jaar ak ña nga xam ne ñoo jiite woon di leen nettali ña nga xam ne tegoon na ci ñoom ay nattu waaye ba mu ko soobee teggee na ko koo xam ne kenn fooge ko fa woon loolu moo taxit yow muudu yow faatu jafe-jafe yi nga nekkee sa borom yàlla la ko gën a xam gëmal ne ci yàlla kese la jógee gëmal ne kenn mënu koo teggi ku dul moom ay yow muudu yow faatu li ngay yaakaar bëgg caa jot ci sa loxo yàlla dong jàll wa ala la nekk amul kenn mënu la koo jox bu ko yàlla dogalul ci yow bu yàlla dogalul mu nar a ñëw kenn mënu la koo xañ mbokk heure bu ñuy dundal asura wékku gu rafet gi la ñu war a fàttali li ñuy wékku koog suñu borom te it nga xam ne yow jullit ay nattu jomb la ay coono jomb la bani israil bi leen yàlla di bàyyi firawna ay ati ati ati at muy rendi seen doom ya di leen toroxal booba ñoom ñoo gënoon ci kaw suuf ñaari yonent ñi ngi nekkoon seen biir muy yonent yàlla Muusa yonent yàlla Haaruna teewul ba leen yàlla yónnee ne Firawna gën a taral ay mbugalam ci ñoom loolu muy wane ne kon dund ay coono bul ndax nga jàpp ne yàlla da laa bañ gis kuy dund ay coono bu mu tax nga ña- jàpp ne dafa doy ni yàlla da koo bañ déedéet mbokk diri suñu borom mooy nattu ay jaamam nu mu ko neexi ngir bu dee ñu julit ña dana ci yëkkatee seeni daraja baal leen ci seeni bakkaar yëkkati seeni daraja ci biir aljanna lii la julit war a gëm suñu borom yàlla moo xettali woon Muusa ak xeetam ci Firawna yàlla yàlla xettali ñu àdduna ak alaxira jamono ji ñu wax ak yéen sunu mbokk jurit yu bari tey jii ca Birmanie sunu mbokk jurit yu bari tey jii ca Syrie ña nga xam ne ñoo nekk ca Yémen ca Tchétchénie ca Afghanistan lañu xam ne fu la ci Centrafrique sunu mbokk jurit ñu bari ñu ngi foofu jàmm ji ñu yàlla nattoo amuñu ko ñi ngi nekk ci fitna ñii génn nañu seen i kër ñii seen i famille tasaaroo nañu ñii ñàkk nañu seen i liggéey ñii bu ñu añee duñu reer ñii xamatuñu fu ñu jëm ca dara yóbbewu leen ko lul laa ilaha illallah bañ gëm seen borom yàlla nattoo leen ci loolu su ko defee ñun suñu warugar bu dee mënuñoo dem ànd ak ñoom xeex amuñu kàttanu alal bu ñu leen yóbbul ngallaawaay bu ñu leen fàkkee di leen ñaanal fu ñu mën a toll yal na yàlla xettali leen nam xettali woon bani israil te natt yooyu yàlla teg ci ñoom it yal na yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi ko gëm duñ ko bokkale dara yaakaar ko duñu yaakaar keneen ku dul moom sukkandiku ci moom duñu sukkandiku keneen ku dul moom yal na yàlla yombalal ñu lépp lu ñuy jëriñ àdduna ak alaxira yal na yàlla soril ñu ci lépp lu ñuy lor àdduna ak alaxira yal na yàlla subhanahu wa taala rafetal suñu mucc yal na yàlla كيف سلم جبر إلى صراط المستقيم يلا يلا دجل نجاة جنام يجل كوي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين